weddi lenn ci li ñu wax manifestation nag manifestation la mooy kuy def lu ñu aaye ci façon bu fitna mënta juddoo c'est-à-dire il faut ñu ñu ñu ñu bañ a yóbbu yëf yi ci foo xam ne eggu fa manifestation interdite manifestation non autorisée mais de toute façon manifestation pacifique la parce que amul benn yoon Sénégal benn yoon la musa am ci histoire am manifestation non pacifique muy bi ñuy bi mouvement MFDC di juddu. à part bépp manifestation boo fi gisaat ñi koy def dañu ko def occasion ngir génne colère ngir génne seen désaccord ci benn lëf wala benn dogal bu ñuy jël dans ce cas nag ñu ngi indi désordre ñu ni kon yéen ñi am sañ-sañu fu ngeen taxaw fu leen neex taxaw mbedd bu leen neex occupé bu leen neexee jël sens interdit parce que ci groupe boobu ngeen bokk ñu protéger leen fexe leen ba ñii di fésal seen euh, colère ngeen indiwaat ordre foofu tas leen leen sànni leen ay lacrymogène xëpp leen leen ndox mu tàng kenn waxul dawal leen seen oto jaar ci seen biir am ay jumtukaay ci wàllu fital yu ñu nit ki mën a xeeñ sa bët jooy nit ki mën a xeeñtu du ko mën a noyyi ñu ni leen jëfandikoo leen ko sol leen lu ngeen mën a protéger seen bopp bu leen gaañu yéen ñi nga xam ne itam am ngeen ay jumtukaay benn moment bu mettee ci force de l'ordre yooyu jàppandale leen seen ay jumtukaay ñu jëfandikoo ngir mën a protéger wu ba tas manifestation bi teewul ci yoon. mais du benn yoon bu ñu waxee kenn am nga sañ-sañu rey nit ki et à chaque fois ci manifestation yooyu ñii dee ay innocent la ñuy nekk soit ñu beroon fenn soit ñëw xëxtal la amatoo fenn foo jëm mais attends il faut ñu jàngalaat suñu force de l'ordre yi ba kenn du caaxaan wax dëgg yàlla ñoom nañu xam ne ay frères lañu Sénégal ay sœurs lañu Sénégal dina métti ci ñoom jaatuwul bakkanu nit yi bakkanu ndaw yi di dee ci loxoy force de l'ordre loolu ñu ngi interpellé état bu Sénégal nañ ñu ngi interpellé ñépp ñu wax ci ci tàggatu gi sérieusement wax dëgg yàlla boo ko benn benn lee mu ngi bëgg a bëri am ñu sañ-sañu def maintien de l'ordre am nañu sañ-sañu jàpp nit ki mais rey nit ki c'est autre chose bakkan dafa doy waa en bi mu mën a indi métti na Mansour rey rey na bakka ay bakkan rod na ci ñu ngi wax ñaar donc mais dañu gis ni coowal suuf duñ ni guléet liñ koy faral di gis ci réew mi tamit bari na xam nga xam nga coow yu mel dafay dafay dafay man dama ci dama ci teey ci wàllu suuf euh, parce que doo xam lu nekk ci ginnaaw dañuy wax ni nangam surface bi nangam la dëkk bi amul espace vert ndaw ñu doon nañu ko jëfee jëfandikoo ci anam gi dagg nañu ci li jox leen pour ñu jëfandikoo ko foofu dañ koy woowee parking Ngor donc dafa euh, sëb la li ko bëri na ci biir est-ce que ndaw ñi ñoom ñooy manifester. kese kese ci seen ñàkk ànd kese kese wala ndax am nañu nekk ci ginnaaw manifestation bi kese est-ce que demande demande ñu bàyyi leen espace vert boobu la parce que comme ni ko njiital mouvement Ngor Debout waxee ñoom ñu benn yoon ñu def fa brigade comme ni ñu ko bëgg a comme ñu ko annoncé mm-hmm. mais bu ñu bu ñu occupé brigade bi kese est-ce que loolu dong lañ fay def posé nañu ay questions parce que ñoom dañu mos di dëkk ak way takk der yi parce que xam nañ ñoo yor seen karange moo tax gis nga jotaay bi wala wala liy génn comme information dañ ko topp ba ci ci pandaw jo xool lan moo sabab coow foofu kese kese ba ëgsi fii mu yëgsi fii tey beneen bi suñu autorités yi ab capital day am fu muy noyee noyyee mënuñoo jël ab dëkk tabax ko ba kenn du am foo noyyee donte woon it nag état bu ne am na sañ-sañu xool fu ko neex ci suufam muy dama fa bëgg a tabax benn infrastructure surtout ci wàllu sécurité benn brigade benn commissariat wala benn camp sapeur pompier loolu nguur sañ na ko mais lu ci mën di am nguur googu bu mu fàtte ni existence nguur dafay bàyyeekoo ci existence peuple ba noppi donc li am nii c'est médecin après la moo comme ni ko waxee loolu la parce que lu mën di am est-ce que jubbowaat dina am ndax nguur dañuy faral di wax ni du reculer est que dina bàyyi suuf si ndaw ñi itam euh, bi kenn faatoo gis nga yeneen dëkk lébu yi jaxasowaat nañu ci te Dakar ku nekk xam nga lébu dafa am doole kenn ñaanu ko yàlla mais kilifa yi war nañu gaawantu baral jéego yi calmer situation. bii nii mais ne fi ne déggoo am na Mansour parce que démb le président euh, dalal na leen donc waxtaan jël na ay mesures donc foofu mën nañu wax ni peut-être mën nañu jàpp ni fi ne liñ doon xëppoo liñ doon xëccoo euh, muy coow li nga xam moo judd moom moom moom la. ay proposition la. Mhm. yu xaw a mel ni ci li ma amagum euh, information comme Mhm. cest à jël lii. mais délégation bi ànd nañ ci mesure yooyu. waaw voilà bàyyi leen ak mhm. lii jël lii. Mhm. bon moom laa lay wax ni la foofu moo tax ma ne dafa am lu ko leneen lu nekk ci biir loo xamante ni bii foog nga def investigation. même ci localité ba pour mën a xam est-ce que bu président waxee nañ ko dagg ci digg bi dina tax coow lu jeex. est-ce que ñi nekk ci ginnaaw ndaw ñi aussi dina tax dina tax coow lu jeex euh, ci kanam tuuti dina am leneen lu génn loo xam ne waxuñu ko. pourquoi ñu tëb te woowee ko parking parking waa Ngor gépp la bu xësee nekk parking mënutul nekk terrain bu ñuy defee sport benn terrain mënuñu ko occuper ñaari choses yu différent parking fu ñuy taxawal ay oto kenn du fa def terrain football pourquoi ñu koy woowee parking problème la est-ce que dañuy demande ñu bàyyi ko parce que espace la boo xam mun umoo euh, quartier ba loolu mun na nekk donc autant de questions yoo xamante ni bii fi situation yi tolloogu même président bu gaawantoo ci jéem a solution parce que li mu def solution bu am solo la mais est-ce que dina régler problème bi. Mhm. moo tax man la sëb la li ko bënd ngi ci biir. d'accord Birahim des des décisions yoo xam ne démb euh, tukkee na ci ci ci rencontre bi ñu amal euh, bi ñu def ak le président Macky Sall.